ñoo cogg promoteur yi. ñu bàyyi ko tey gor tànk promoteur nañ ko bàyyi ku ci mën a jàppale promoteur bees nañ ko bàyyi mu doxal boppam tan bàyyi affaire yi ñuy def loolu baaxul. loolu baaxul da ngay promoteur bu bees bu ñëw war a jàppale xale yi war a jàppale làmb ñu ñëw di ko xeex di ko gor ay tànkam loolu baaxul ku ko ciy def balaay bala ngaa dee gis ko ku koy def jaara bala ngaa dee gis ko baaxul jaara. voilà bu fekkee dañoo ñëw pour jàpp voilà xale yi bu ñu amee promoteur faire da lay doon ci sénégalais la ñuy a a baax loolu la mais nag dafa dafa ñaaw gis promoteur bees ñëw ñu war ko jàppale war koo mu tëgg benn combat rek loolu baaxul loolu baaxul nan ko bàyyi nan ko bàyyi loolu baaxul nanu yaatal ubbi affaire yi xale yi bëre jaara seen yéen su sañu waaw ñu xeex ko waaw léegi ca ginnaaw suba incha allah dinañ ak tey yëpp benn la woon nag wax dëgg yàlla waaw waaye nag xañ na date bi euh, bi dafay yàgg te kon ñoom dem nañ ba taamu ne ginnaaw suba rek nañ ko jàppee noonu rek nañ ko jàppee noonu li ñu loolu ñoom ñoo ko xam man daal li may wax man promoteur laay xeexal yu nga xam dañuy ñëw ñuy gor seen tànk baaxul suq promoteur ku jóg topp promoteur yi ñuy gor seen i nga tëgg benn combat daal di dawaat loolu baaxul loolu baaxul waaye dañoo war a ñëw yaatal comprendre nga voilà jàppale xale yi moo gën. non non may la am nafi fi non am na fi dafa bari non dafay bari dafay bari non dafay bari xoolal Mansour Mansour moomu nekk jàmbaar jàmbaar ñëw na fi nekk promoteur di jàppale xoole xoole journée yi mu fi tëggoon. Franc Franc Franc kii Franc su xool ni mel ah xoolal Siteu Papa Sow xoolal Siteu Papa Sow dañ ko war a jàppale kooku dooleel ko ah moo gën am ay suq promoteur nekk ci ginnaaw ah di jéem a yàq di ko ah di ko jéem a xajamal bëgguma loolu sa hunta nan ko jàppale non yàqu-yàqu yoon non promoteur dugg dañ ko lu jàppale ah, lamb ji daa bëri ay kaña waaw dafa bëri ay kaña ndax ña douze waay kaña bu ne kaña douze kaña lépp ndax xam nga promoteur su bees yi dañ ko war a dooleel waaye lii nag baaxul xam nga waaw nu leen di doolelee ñëw jàppale ko teg ko ci yoon teg ko ci kot du ko dugal ci lu ko arrangé waaye dañuy ñëw bu ko yoo xam seen i mbër la ñu doon wala ba pare nga dem ci suuf di jël mbër mu ndaw di ko laaj xaalis pour mu tëggal la nga dem lekk ca promoteur ba lekk ca mbër ma dem no baaxul waaw bëgg si lool baaxul lool su baax promoteur bi day daw su boobaa promoteur bi day daw loolu baaxul nan ko bàyyi te ñaanal promoteur yi yàlla dafa leen jàmm lu gën a yokk jaara gën a baax waa di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla may ko ndam ndax ki muy bëreel kaña la kaña ko mag la waaw day dar rek non lu mu bëri bëri pax su ñëwee benn benn pax rek lay dugg te curux curuxam boobu benn pax lay dugg te benn pax boobu su ma duggee fa lay dëju waaw way kii xale la vraiment xale bu ndaw la te xisal lamb moo tëdd rek waaye tey wata woon kii sax waaye kii ah, da koy yokk da koy yóbbu feneen ndax Moustapha Gueye 2 bëri naa ku ne naa ko ñaabu ndaw su ko daanee tey dina ko yóbbu feneen nan ko ñaanal yàlla dafa koy daaw ki tëgg làmb ji sama xarit la sama patron muy Dieye tey jii journée yu mag yi di gars yi tëgg mën na koo tëgg Dieye mooy taxawal làmbam fay dem tukki dem voyage ndax lan moom day jàppale xale yi wutu ci dara day tëgg làmb di yëkkat sam di ci def wutu ci dara tey jii xool ko mi ngi moo tëgg làmb fa mu toog ñoo toog soo ba léegi jógu fa ba si kaw tribune ba jógu fa kon kooku moom li muy def moom jàppale xale yi moo tax mu waaye jógu ci pour wut dara ndax jéey dañ ko fekk ci liggéey muy liggéey di teral ay doomu aadama di dimbale ay doomu aadama comprendre nga ñun xam nañ ko bu baax sama doomu day la tey gars xamuñu yoo xamul naan dañuy yaakaar ni jéey mënut a tëgg journée yu mag yi mun na ko tëgg ba mu tëgg leneen ak leneen mun na jël journée yu mag yi yu mag yëpp boole leen benn journée tëgg leen waaye dama lay wax mën na jël mbër yu mag yëpp tëgg leen ci benn jour waaye su see mu demee nii pour jàppale xale yi moo tax rek moom soo sago bàyyi na làmb yàgg dañ koo téye ci làmb ne pour mu jàppale xale yi waaye soon moom dong la bàyyi na làmb man ca leneen yàlla na nu yàlla defal jàmm. surtout yow mii nga xam ne. waaw danaa jël Géejawaay. waaw wan ni leen fa nga dëkk. waaw kuy xewle da nga koy dooleel. waaw maanaam loolu lan nga mën a wax ci loolu. waa lu ma mën a wax ci loolu ñun Géejawaay la ñu am Géejawaay la ñuy tiitaroo cee doomu Géejawaay la su ñëwee di jàppale xale yi comprendre nga tey jii ñun ñun dooleel ko man ak jàppale ko ndax li muy tëgg moom ba nga nee toog fa mu nee la fa mu toog ba léegi jógu fa kooku su ko neexoon ba ñu su ko neexoon ba ñu tëgg làmb xale yi muy jàppale ñaamu ndaw doomu géej way la comprendre nga mu taxawal ni journée bi ñaamu ndaw warta woon a bëri Moustapha Gueye mu ñaaw non non non non déglu ma rek journée bi la bañ mu yàqu journée bi la ñuy bañ mu yàqu voilà journée bi la ñuy ndax date bi dafa yàggoon booy bi jëloon combat bi léegi Jokal mu war a mbëre mu am blessure Moustapha Gueye de gars yi jàppale waale ko pour mu am dara ndax mbëru mag la moo tax ñu jox ko booy bi loolu moo tax ñu jox ko booy bi ndax jéey day def social ndax waaw ñu koy wax nañ tëj seen làmmiñ te noppi su ma neexoon ma ne tëgg làmb waaye booy bi lay jàppale Moustapha Gueye 2 lay jàppale ndax Moustapha Gueye 2 ñaata at kenn tëggul ko combat ah mu nekk fi yàgg ci làmb tey suñ ko joxee jéey ma ma ma tudd jéey Dieye su taxawalee combat bi jàppale Moustapha Gueye 2 la jàpp sauvé jàppale journée sauvé journée bi ñiy wax loolu dañoo war a tëj seen làmmiñ te noppi gis nga Dieye su ko neexoon tëgg ay combat yu mag a mag a mag su ko neexoon mu tëgg ko suy def ni sauvé journée bi nañ jéem a def ñoom yenn promoteurs yi ñuy ŋaamu ak di wax nañ tëj seen làmmiñ. mi ngi fii ñoo ngi feet suñu victoire ñoo ngi feet suñu victoire di ñaan yàlla na ndam li jik bu nekk ci wala ñu ngi koy séntu ci kaw mbër bu mag bu ko fi euh, moytu da nga koo ragal mbër yu mag kaw ko moytu da nga koo ragal ñëpp. oh dégg may la ku bëree lu moom da nga koo ragal ñoo ñu nekk VIP ñuy wax VIP may la bàyyi ba bàyyiwuf kenn. bàyyiwuf kenn seen patron bi Thialis moo fi doon dox combat saak euh, la de guerre Tapha Tine ba naan bu combat bi ñu dem ba ci biir déggatul ko loolu baaxul. loolu baaxul soo mënul da lay toog. bu dugg bu dugg noonu foofu laay dugg yaa xam fa laay dugg fa laay dugg. loolu tax ak xam nga yoon may la combat bi dañ déglu ma combat bi dañ ko déclaré ba ne combat la de guerre dama dama non de guerre clé Siteu taxaw na ñu ne koo tëgg ñu ne caalis comprendre nga ñu déggatuñ ci dara comprendre nga. déggatuñ ci dara. juboo nag la de guerre juboo nag la de guerre Siteu la jubawul. voilà d'accord mu leeral mu leeral mu génn leeral ko ndax xamuñ yaa ko wax man xawma ci dara waaye jàpp na taxaw léegi waa jàmbaar bëgg nañ ko ñoo ngi koy dox yàlla taxaw jàmm yi Mansour di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm promoteur tamu mooy sukk promoteur yi Mansour te mooy du sukk promoteur yi sukk promoteur Khadim Ndiaye ndax maa ngi dégg mu. na déglu maa ngi dégg mu naan baal na ñëpp ba man. Eh. man yéenewuma kenn lu su ma yéene lu moom yàlla ci jiitu su ma yéene lu bon yàlla ci jiitu. que yóbbul nga ko xaj bi. ah yóbbul nga ko xaj bi. non man maa waxoon dama koy yóbbul xaj te yóbbul naa ko xaj bi da koy lekk far foos ma ne yàlla na yàlla ba jàmm ñun ñoo ngi feet suñu victoire ñoom lañ ñu félicité ne ñooy Reug Reug champion la. naa ko nee naa su ma xamalee dara waaw léegi nag da ko génn wax ko damaa bëggoon yàq see guy guy gi sama rakk la lu ma wax guy gi sama rakk la man ñoom ñëpp sama rakk la guy geeg Lada Guèyeau Balla Guèyeau euh, kii nu mu tudd saa kees Aliou Seye ñoom Marley ñoom Pape Thiam xale yëpp ñoom ñaar. man ko métti ba mu wax noonu. waaw xañ na defet bee rek te moom daf ñoo war a champion ba indi na Reug Reug ba tàyyi Reug Reug daan di champion kon suñ ko daanee ñoo war a nangu xam ne sport moo demee noonu sport moo demee waay waay na ko wax na ko ana ana suñu xarit bi borom Amérique kan ci moo